la tuutal kenn du la ñaawal kenn mënu laa teg tuuma ndax yàlla la seet. yàlla ko yàlla matal. bu baax la dëgg naa nga def amul loo ci def kër gu nekk dugg nga ko def li nga war a def am nga am ñëpp jàpp ñëpp bëgg nañu amul kenn ko la bañ fi nga juddoo fi nga yoroo fi nga màggee fa nga def lu ñaaw mu koy wax lu ñaaw yàlla la yàlla teral man na nga xam ne Medina lu ma wax Medina ko yow xam nga ne lu ma wax Medina boo ko xam. alxuraan

gum gum low. sama waa ji kii moom seen moom moom dëgg yàlla moom moom mën naa wax ci moom moom war ndax euh, ñun yàlla suñu boroom waaw ñun ñoo jotandoo waaw waaw yarandoo waaw mu nekk nit ku baax li ñu taqale taqaliko mooy moom mu génn dëkk moom mooy mu génn réew mi dem ci yeneen réew te foofu yàqu fa dara waa di defar sëñ Modou Kara moom mii moo ko njëkk indi Médina waa waa ñu bare riisis waa baare ko def ay cant yu yaatoo yaatoo def na ko defaat ko waaw waaw waa moom li ñuy seede si moom xanaa di ko ñaanal rek waa Serigne Touba teg ko loxo te lépp lu mu bëgg maanaam fu mu jëm yàlla na ko fa yàlla sunu borom jëmule waa kii moom li ma mën a wax ci moom daa bari. waaye yal na Serigne Touba yokk jàmm yokk xéwal waaw waa waa kii sama lépp la. naa nangu naa jërëjëf ci jàmm ñu ci jàmm di ziar jërëjëf Sow Sow maa ngi ziar di la baal wax jërëjëf jërëjëf amiin yàlla amiin yàlla boo yàq yàlla boo yàq amiin saa yi mu ubbee sama téléphone gis la gis ñëpp Abbas gis ki da lay ñaanal lay ñaanal uh, xarit ndeysaan ñoom waa kii la ñu waa Allo Dakar ah, bu naa ma fàtte kii sama xarit la ah, moom moom moom télévision bu ñu Allo ah, Dakar tey nag dañ doon def euh, tukki nemmeeku euh, dox mbokk ñu jóge nag Médina ndax comme jamono ji dafa bari accident yi am ci senegal ñun nag ñu defoon juróom-ñaari fan yoo xam ne dañuy wàcc ay kaamil di def ay ñaan ñu ne woon nag dañuy doxantuwaale tamit di sàkkuwaale ñaan pour réew mi wallaay ma ne woon nañ agsi ba fii kër sëriñ bi mm-hmm. ndam fii la sëñ bu mag bi nekkoon barabu ñaan mm-hmm. du ko gën a màgg mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa moom fépp fu mu nekkoon euh, barke foofu dafay des bu ko defé ñu ñëw tamit barkeelu rek ziaré comme niñ ko daan défé rek di ñëw fi di len sét di sakku sen ñaan wallaay dëgg jërëjëf ku fi dugg kontaan jërëjëf ku fi dugg ñaanal la gënaaw yalla yonente ba néeg bi ni taxaw ma defar néeg bu moom baax ne seigne Touba bi ku ñëw ñaan man leen ah ñaanal leen ki defar fii de defaraat peinture def lépp tuwaarkàl la gey gey géey ni ma daggal na la wër bu ne waye may wo Abbas jotuma ko indi won na fi na indi na fi gay gay gay di la ndama lol leg la ñoo tudd maa ngi day sama dombu jigen jigéen bi man man daal sama mënoon gis sama señ bi ah as ke dina ko gis man ma xamna dafa tukki rek xamna da nga tukki rek way tukku bi yalla sax amin ya rabbi nga gëna yokku amin ya rabbi gay gay gay yalla bu ñu dara sa gannaaw ak sa njaboot yi ak ñopp ak mbooloo mu jullit ko baax nga gay limu tukki sax mo tax nga gej ko gis content na de fan yi mom dafa ñew du ba ci man xanaa rek bàyyi ko suñu borom bi rek moom nga xam ne moom moom moom lépp lépp lépp moom rek moo mun at bàkk sëñ bi sëñ Touba mbàkke ama Alaaji Malick bàkk Cheikh Tourade bàkk Cheikh Yankob barke borom néeg bi sama barke waajur yàlla na la yàlla na la wuy si yàlla na nga yokko yokk yokk ba yëg ko Matar Sow chaque jour ñu waxtaane ko gis nga ko de nii nama la lool naka nama la lool géy di la xalaat di la ñaanal foo toll rek ne amee ngay ak sa njaboot bu soobee yàlla yokku rek te yokku yàlla nga gën a yokku barke yonent bi barke borom Tuubaa borom néeg bii géy kontaan rek tuwaar kaar jërëjëf kay kontaan naa ah, sama mbokk mi ngi si jàmm soxna si lu ñu defal ma maa ngi ñaan yéen tam Cheikh daal ngeen yokk yàlla liggéey bu baax ngeen yokk ba yokk barke yonent bi nga yàgg fi rek ma nga yàgg fi te wér amiin yàlla bi fi njëkkee ñëw daf fi daa ñëw toujours sax di ñëw di ziare si moom mii mu ñëw di ziare si di ziare si ziare si benn tabaski na mu ñëw fi ziare si ñëwaat fi ñu nuyoo ba pare mu ne ma xambe woo ma de ma ka ko lay ye as mu daal di ree ko melekaan bi moom moo moom moo ma xaw a yóbbu boobu beneen comportement tubaarakàlla bu neex bu rafet bu kontan ñëpp kontaan mu ne ma béréb baa ngi ma ne ko waaw mu ne ma loo ci fas yéene ma ne ma daal karo laa bëgg defaraatal ma mu ne bu suba na suba mu ne ma suba rek mu yone mu yone manœuvre indi karo yeeg yëpp kala kaal peinturaat nit bi defaraat lépp lépp lépp tubaarkaal ku fi dugg loolu laa lay wax fii karo yi nag yi fi newoon ci maam Serigne Touba ba léegi moo ne ci suuf kenn génnewu ci dara ñu abba sànniwu ci dara yëpp nañ ma dugalaate ci biir ràmbale ko du doko ko dër dafa ma ci karo yi tubaarkaal kala kaar macha allah ni karo yi weexee nii yal na sa ja addina yi ba ci yomal ko yàlla daate yal na yeex defar jàppukaay bi karo bo dal ay tapem indi ba tubaarkaala kal ba léegi nit ñang ngi fi japp di julli ba léegi dégg ñu no takusan defal ko ba mu baax nit ñu bañ ñi waaw jakk ji léegi rafet na de man ah tubaarkaala kal fi mu ne di day suñu benn bokku talibé de moko ko defar moo defar de bëggul na ko tuddara waaye moo ko defar ñu contante lool mané fu nga julee rek ñaanal leen ko waye néeg yi nga defar ak kër gi ni nga defaré ni ba kër gi nit mun fee duggu di xol xool tubaarkaala kaal na la yal na la yàlla yokk aouzu billahi min asheytaani rajim wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min asheytaani rajim rabbi aouzu bika min hamazati shayatini wa aouzu bika rabbi an yahduruni bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sadit lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay kon mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare di Jital ci siar bi Cheikh Mahamadou Mountakha mu yag fi Diko nyanal di ko ñaanal Serigne Amdi Modou Mbenda ak njabootu borom Touba gi yep eh, mu mel ni nag tey ñu ngi jakarlo suñu mbokk taalibe bo xam ne eh, yitte yi mi dox ak yéene yi lepp l'islam la mm, mu mel ni limu eh, li mu fi réew mi toll ak khat khat yi ak tiss wi ñu nekk ci ay bakkani doomu adama yu bari fi jóge mu mel ni ñëpp a ngi diko tislu ko tiislu ci jangum alcorane bi ba tay dëkk bi boobu ba tay ñi ngi ci dëj ñaan suñu borom mu gëcc fi euh, lool nak limu wax ne boobu ba tay ñi ngi ci kamil alcorane di ñaan euh, lu yalla la lu rafet la ñoo ko ci gunge te diko ko hmm, mu melni réew mi yépp ñu nit fee ñu nekk ci daara ja euh, boobee ba tay sa bu ñu nañ jang alcorane ñaan ñu nit kon day melni ñoko and li naan montre yu baax yi dañuy bokkandoo ay heure euh, loole nag nga boole ci nemmiku boo xam ne ak mbokk ngay dox loole di lu rafet tamit ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku jokk mbokk ma jokk la waaye ku ko dagg ma dagg la kon sa nemmiku bii li ci li ci dolli ak li ci rax dafa bari lépp di yiw lépp di lislaam euh, ñun nag bëgg nañ ci lool bëgg nañ ci lool di ñaan suñu boroom nga yàgg koo mën a def yàgg koo taxawe eh, jàkka ji yi tamit fàttewuñ ko ba nga fi ñëwee rek yaakaar na ne yàggut bi nga defaree néeg bi ba noppi bi ñu la waxee mbiru jàkka ji rek da nga cee da nga song mm, ki ko doon peinture man la woo nu ngeen nu ngeen ko bëggee ñu wax ko mu def début bi def lépp nga génne sa alal def ko ci. kon nag loolu eh, yàlla na dugg rek ci li suñu borom wax ci wax ci alxuraan ne allazina yunfiquna amwaalahum fi sabilillah loolu nag euh, ñu ngi koy ñaan suñu borom dugal ko foofa te lépp lu ci yu suñu borom digge ko nga jot ca euh, bëgg nañ ca lool lool lool ndax néegub yàlla ku ci def yàlla nga defal yàlla nag ko am moom affaire sa xel war naa dal yàlla nay lu baax te gis nañ lu baax la ñu ngi leen ñaanal nga yàgg ñu fee fekk yàgg koo taxawu ànd kook ñi ngi ko àndal ñoo ngi leen di siyaare bu baax wasalaamaaleykum waaw kii genre genre bi champs moo koy tool. ay tol. doon wax tol. ay tol, tool yi xam sax dégg dégg naa it ko far nii saxaar bi daan mag dégg naa dañ ko daan xaar xaar ba saxaar bi ñu ay am ndax dañ bañ ñu xam محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عشان يا شنقي قريشني على الوان دق دق دم دم لا اله الا الله لا قول الا الحمد امين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 المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين الفائزين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآية وذكر الحكيم واجعل لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الايه وذكرنا بما دربت فيه من المسلات وكفر بالتلاوة عن السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم ختم القرآن آمين وتجاوزنا ما كان في تلاوته من سعي أو نسيان أو تهريم أو تعريف أو تقديم أو تاخر أو زاري أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو تأجل عند تلاوته أو كسل أو جغل لسانا أو كوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغام أو جهر بغير بيان فاكتبوا منا على التمام والكمال والمحاز من كل جهان وارزقنا فضل من قرأه مؤدنا وما الأداء والقلب واللسان وحبلنا بالخير والصادر والبشارة والأمان ولا تختمنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا منا من غفر لك سلام وعمنا من أذى أبن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وآتك رغابنا من النيران ويمر كتابنا ويسر حسابنا وحق الميزان بالحسنات وثبت أقدامنا الأسران وسقنا وسد الجنان وارزونا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين وأكرمنا بك يا ديان وأكرمنا بلقاك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب غمومنا وقائدنا وسائرنا إلى جنة النعيم اللهم اجعلنا سنعيب في سعد في الهدى ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهوال وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بسعد آجالنا حق بزيادة أعمالنا وقرن بالآفر غدوانا وآسالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومعلنا وسبوب سجالك على ذنوبنا ومن لنا بستر يومنا ومن لنا بستر يومنا ومن لنا بستر يومنا اللهم يتقوى كزارنا وسقط بك زخرنا وتقادنا وأمن من جوال خفي بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين آمين. اللهم بلغ ورانا نور ما ترانا لروي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم امين اللهم بلغ ورانا نور ما ترانا لروي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم امين اللهم بلغ ورانا نور ما ترانا لروي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم امين ولارواح ابائه وامهاته وازواجه وذرياته واصحابه ورضوان الله تعالى اجمعين ولارواح ابائنا وامهاتنا ومسائخنا ولارواح المسلمين والمسلمات والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين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 وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي الميعاد اللهم يا شاهدنا غير غائب ويا قريبنا غير بعيد ويا غالبنا غير مغلوب اجعل لنا من أرنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب واغفر لنا ذنوبنا وثبت رجاك في قلوبنا حتى لا نرجو غيرك يا الله يا الله يا الله بجاه بسر بحرمة بركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سوى ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى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 ci darajey muhammadu rasulullah so pay Yang yalla ñepp ñaan yëpp nangu ci darajey yon ci allah muhammad Yang ñaan pun nango ci darajey muhammadu rasulullah maamadat yag nga bëgg yon ci allah muhammad fadratun min rusli illa basharat hawmaha bi kal anbiyaahu yaay Zeynabu sa yaay jooje di sunu yaay yal na dajeek yërmande Muhammadu Rasulullaay lakazatuley ku baax bu dee ñu jooy ko xulumi min alamil xaybi wa min ali adama lasmaaw yaay Zeynabu sunu yaay jooje yàgg na ma teral ngir muhammadu rasulullah fii laa daan ñëw ci biir kër gi di ko wel yoon ca muhammad nan ko ndoxuk melax kamu rey ndoxuk melax ca deeraayu zeynabu zeynaboo nga makka mooy sotrondo sa yaaya baax zeynaboo ngi nii ndoxu mala dafa roy leeraay bañ yëcc Zeynabu mooy sayaay du Zeynabu rewam ja mooy loole Zeynabu rewam ja mooy loole as jëm ca kanam sayaay jooje yal na dajeg yërmande Muhammadu Rasulullah maama dat ku baax bu dee ñu jooy ko fadratun rusli illa basharat aw mahabi anbiyaaw waat naa ni Zeynabu yal na dajeeg yërmande Muhammadu Rasulullaay tatabaha wooy na ñëpp màggal yoon ci Muhammad bi ka lu suur bi ka moom yonent bi aliyaaw wa bada wa wooy aliyaaw yaay Zeynabu yal na dajeek yërmande Muhammadu Rasulullah asal wujudi kulli bi judi Sëriñ Bamba nee na waccal ujudi faw xala daay xabli wi daa daay mami nuri ni nee na xuduli murada fada bila kiraay Muhammadu Rasulullah ablil buuróora sëriñ bamba nee na xinil ab dan suruura lii kuliraaye sunu sëriñ ba nee waskur xilaami wamal kalaami bila malami walantiraye muhammadu rasulullahi sadi lisani seyayu jooje yal na dajeg yërmande muhammadu rasulullahi nawir janaani ku baax bu dee ñu jooy ko safyamaani wusit baraaya zazata dayra li xuta mayra faltak fi jawra li man yuraayi anis iyaali muhammadu rasulullahi minna dalali wabil alali xalit sarayi ini tabaayi yoon calla muhammad xudulil kitaaba waqbal mataaba yaa sa siraay yaa xayra rabbi xayral murabbi tibte xalbi baad sedaayi nelaw ngeen nelaw ngeen ay sama gaayi waaye ñi ci biir suuf ñoom day nelawuñu ñi laloo suuf sangoo suuf ngeganoo suuf ndox di dal ci seeni kaw ñoom day nelawuñu yaay Zeynabu yal na dajeeg yërmande Muhammadu Rasulullah bés la bu rëy rëy boo xam ne bii weddi ko teewul nga fekki ko yàgg yàgg fekki ko ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi ay ñun fu ñu jëm cey bi la bis ay ñun fu ñu jëm cey bi bis koo ma sa xam gis ko ci tiis ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi yàlla borom jaam ñi malaaka mu rëy rëy lay yabal nan la jogal tey la sa bis jógal jógal ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi yow nga toog a toog sa bis may rocci saru mu metti lool te doo ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi yàlla borom jaam ñi malaaka mu lay abal nan la jógal tey la sa bis jógal jógale ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi si kër sa jib nga tàggu kër ñu jële la kër yóbbu la kër wuute ngi ni ci ñaari kër ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi yow nga toog a ba ñetti fan nga dal di mel ni meddub tan yu tan ya wër ci benn bu sën ñu xam ne yàlla mooy borom jaam ñi ay ñun fu ñu jëm cey bi bis koo masa xam gis ko ci tiis ñu xam ni laaw mooy borom jaam ñi yaay Seynabu sa yaay jooje jëm ca kanam yal na dajeeg yërmande Muhammadu Rasulullah nga toog a toog ba ñetti fan nga dal di mel ni meddu bu tan yu tan yi wër ci benn sën ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi keroog la di jooy baay di jooy doom di jooy jabar di jooy dëkkandoo di jooy te kenn du ci man lul di jooy ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi ana taax ya ana alal ja ana kàttan baak taar baak man-man ba ñu xam ni laaw mooy borom jaam ñi bu dee doon jaas yoon ci muhammad du dem ba ñu de yaay Seynabu yal na Muhammadura yërmande Muhammadu Rasulullahi yal na ko yalla yërëm ci je yonenti bi sa yaay sama soppe won ngir yonenti bi terel na ma nu kon ñaan gi ngay def ni jël ko juroom ñaari fan di ci togg ay ñam di sarxé di woo jànkati kamil yi ñu ñu ñuy wàcce kaamil rek ngir jam jàmmi rew mi ak su waajur ngay ñaanal su waajur yi tedd yi dal yalla nga yokku ba yokku sama waji sama xol na guuy rawti nak alu Dakar bi nga ko def nga xamni man alu Dakar la nek kii sama patron sama xarit la way sama patron sama lepp la bu ma fatimu bax mi nga xamni ni munu ma wax ci mom ndax city bari na de ñu bëgg ma liggéey ñu bari waye dama ndax jëmum ak teddam nga te déplacement mu yombul mu bayyi lepp bi ma yëgal ni ni Moustapha dafa ma fu ma lay yóbbu sam ben way wi def ay ñaan une semaine ñaanu semaine mang ngi koy soo gis ñaan kay àjjuma rek laa ci gis waye yow semaine ngay toggi ñam di sarxé di dem ci dekk ndoy ñuy wax ci yow di wax ci lu bax yi ngay jëf loolu mang ngi koy soo gis juróom-ñaari fan ngay tok ñam di sarxé di joxé ah li, santial, yalla yalla nak doon sa ko ak ñun ñep alu Dakar yalla na city bari sama xol sedd na bu naama ma na yalla wéral magal la yow loma ma ak loma ma woo ci ñew ndax dama taq ci yow nga bëgg ma nak say soxna sa soxna bëgg ma sa soxna su bax si say doom nëbbuma sa dara fo fo nek mom mi fu mu nek yobu na fa yow tam fu nek fo nek fek na la fa kon bu yalla jotee jotay bi ñu di tej di tëj xatmu bi kame bi di ko tëj jàng xatmu bi li rek mo ci wara tege yalla na yalla guddal fan yi wëral cër yi yokk teraanga kenn du la ñaawal ken mënu na teg tuuma ndax yalla la seetal ken du la tuuma la kenn mënu laa te tuuma ndax yàlla la seet France jóge fa dem France nekkandoo Toulouse. Mhm. te loolu yàgg na famille bi tamit ñu nekkaat fii ñun ñëpp keroog yàlla yóbbu na ñun ñëpp ñuy dem ak ñëw. Mhm. dëgg yàlla famille si famille Seydou Touré papaam bu mu musaan dugg si otoom tous les privilèges lañ may defal. Mhm. Euh, léegi Chérifou Laay ñoom daal dañ ma def rek comme seen bopp daal ñii nag samay waa kër lañu moo tax ma nag il faut ma jox ko mu wax li nga xamante ne que daal sama diggante ak moom lu rafet jërëjëf Thierno jërëjëf As maa ngi lay ziar di la bëggee bu baax parce que su ma waxulee ci yow rek damay doon naafeq waaw te euh, naafeq du waxal nit lu baax mu lu bon rek la koy waxal waaye man ak yow du tey démb la parce que dara doonul woon dara nga nekk ku baax ma yàgg la wax ne la. man toujours damay gore ci yow yow loo nekk dama ciy nekk dama ciy dem ba jeex parce que yow yaa ma ji loolu parce que mënoon nga dem Europe jóge fa ñëw dem feneen mais defoo ko toujours say nitu démb ñooy say nitu tey ba léegi te loolu ngay dox te ci loolu nga nekk di la sant di la gërëm parce que amul lu la nit di joobe wala almun la la nit di wax loo xam ne ci lu ñaaw la ngay dox doxoo ci loolu parce que lépp ci looy dox rek yaa ngi dox ci lu baax yaa ngi dégg ba pare nga doon taalibe Serigne Touba ak maam Cheikh Rafal nga doon taalibe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni sëñ Mo sëñ Modou Kara bu dugg see fii ci RIKENS bi yàlla ak yow tax mu dugg si fii te sëriñ bi du sëriñ bi du ku nekk lay jóg dem di ko ganale si mais sëñ bi dafa ñëw ganale si leen fii. nga ñëw tànt fii ci réussite bi loo xam ne musu fi musu fi am nga def ko fi sëñ bi ñëw bëgg ba bëgg a dee xam nga mu doon ndam ci yow man li mooy li ma lay wax li ma li may wax démb moom lay wax tey na la jëm ca kanam dangay dem ci kanam te ndam rek ngay am incha ci kàttanu borom bi ay ndam yi ndam yàlla dala koy defal te sa yaay liggéey na fi loolu mais Seynabou Diop yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana mu jël ma def ma ni doom bi mu jur sa rakka Samba Gueye su la bi nga fi nekkulee man la téye comme magam jàppama mhm. xam nga doon koo xam ne moom it mhm. ni mu nekkee France nii nii nii nii ba léegi daf may woo ñii jokkoo man ak moom ba léegi daf may woo mhm. kon as écran taxawul may wax lu ma neex déedéet man du waxal nit ko lu ko neex wallahi azim nit du la waxal lu la neex déedéet amna ño xamne xamnañ ma Ameth Diop bi xamna ni man mi duma dox ci lu lu neex lu neexul mom xamna ma bu baakha bax man tumay dox rek deug lay dox te sumay ànd ak nit ci deug lay ànd ak mom te yow nee la doo ma gën gore doo ma gën gore lo dugg dama ci dugg dama ci jeex tak mais as yalla la yàlla defal jàmm te yok la yenn fi nek nak ci aljuma ji lépp lolou ñu fi yàlla na ko saa borom defal mu doon ay xéwali xéwal da def ñu fekkee ko ñun ñëpp incha allah yal nañu yàlla defal jàmm jërëjëf waay